délai yëpp dañ ko dépassé bu ma jëlee lu ñuy wax lenteur administrative mooy carrière u jàngalekat yi nguur gi dane objectif am mooy dossier yoo xam ne dafa nekk fonction publique te signé wuñu ko visé wuñu ko te muy plombé carrière jàngalekat loolu yëpp dinañ ko appurer maanaam dinañu fexe génnee ko publier ko may fàttali ni premier ministre daf ñu ne woon il faut déboucher le tuyau ku ne déboucher mooy tuyau yi dafa boucher mais loolu objectif boobu atteindre ñu ko lu tax boo demoon ci vacances Noël yi avant fin d'année bi bés bu ne ay téeméeri téeméeri jàngalekat ngay fekk foofu ñu taxaw di xool ndax seen dossier traité nañ ko ndax am nañ numéro projet ndax seen acte d'intégration de validation wala d'avancement génn na. est-ce que nekkul loolu moo indi woon guichet unique yi. waaw guichet unique yi def nañ ko. Mhm. def nañ opération coup de mais c'est que dossiers yi ñoo bari woon. parce que di fàttali ngi dans les années quatre-vingt avec les politiques d'ajustement structurel ak recrutement vacataire volontaire yi moo indi lii maintenant à l'époque bu ñuy intégrer gars yi dañu doon intégrer par quota at bu ne dañu leen dañu jël lim bi à partir de 2017 nag la ñuy wax la titularisation universelle kon nag loolu tey sédimentation yooyu moo tax def nañ guichet unique mais ñun dañu ne guichet unique coup de baax na mais solution bi mooy dématérialisation des procédure parce que tey mooy comme tey ak xaraya xaraya yu bees yi mooy les technique de l'information de la commune ak informatiser ak euh, digitalisation mais on n'a plus besoin jël ay dossiers physiques di ko jëlee Tamba euh, wala Kédougou 700 kilomètres yo dugal ko ci ay caisse il fi tout simplement ñu scanner ko yónnee ko mu ñëw d'ailleurs euh, agence de l'informatique de l'État def nañu ak ñoom séminaire nee nañu ñoom am nañu subvention boo xam ne USAID moo leen ko jox pour la dématérialisation des procédures mais yaakaar nañu dafa tuuti moo tax ñu ne jàngalekat yi notamment syndicats yi ñu def plaidoyer pour ñu yokkal leen ko ndax ñu mën a dématérialiser euh, procédure yi loolu mooy solution bi donc benn question ngi nii ñaareel bi mooy beneen objectif bi nguur gi da ne woon ren fukki junni jàng jàngalekat dinaa leen mettre en solde mooy maanaam dinaa leen jox matricule mais bu ñu defee xayma bi en fin septembre lu ñu gis mooy 3500 euh, mooy ñetti junni ak xaaj bi rek la ñu mettre en solde kon bu ñu demee bi fin septembre moitié bi sax mettre ñu ko en solde lu des day delluwaat yokk ñuy xaar beneen bi mooy ñuy jot seen rappel mooy rappel d'avancement d'intégration ak de validation ñu bëri jotuñu ko lu ko indi mooy lenteur administrative mais lu ci gën a doy waar mooy ñu jot seen rappel dañ ko surimposer ma dama jóge Saint-Louis euh, tournée di nuyu waa Ndar yëpp di nuyu waa waa waa Tassinère di nuyu waa lycée Pal lycée Ngandong lycée Faidherbe di nuyu suñu responsable départemental Ansoumana a ak équipe am mais bi ñu fa demee lu ñu gis mooy collègue yi dañuy wax ñoom lu leen dal mu am collègue boo xam ne nee nañu man dama dama am rappel un million cinq cent ñu dagg ma huit cent mille kenn ki ne dama am deux millions quatre vingt mille euh, quatre cent mille ñu ma un million quatre vingt mille et cetera donc loolu lu doy waar la moo tax ñun ñu ne boo gisee tey lu bari euh, yeexaay yi moo ko indi mais lu ci gën a metti mooy jàngalekat yu bari tey danañu dem à la te du ñu plafonné à cause des lenteurs administratives jàngalekat yu bari du ñu mën a compétir au poste de responsabilité à cause des lenteurs administratives con euh, conclusion mooy tey seen carrière dafa plombé am na benn doyen bu ma ne boo gisee poste proviseur bi gagné ma ko parce que sama acte boo génnul bu génnoon ñi ko gagné yépp maa leen gën a gradé loolu nag moo tax ñun ñu ne nguur gi daf ci war a taxaw lijjante ko engagement bu mu jëloon ne day apurer stock yi déboucher boucher yi euh, déboucher tuyaux yi ñu débouché ko mooy dossier yëpp yoo xam ne mu ngi nelaw fonction publique ñu war ko signé ñu signé ko dossier yi ñu war a visé ñu visé ko dossier yi ne secrétariat général de la présidence ñu war a réglé ñu réglé ko pour que jàngalekat yi mën a compétir pour que mën a avancer. d' accord euh, monsieur Abdoulaye Ndoye si protocole d' accord yooyu nga xam ne signé ngeen ko ak euh, nguurum Sénégal si 30 avril 2018 mun nañoo jàpp ne naam sax euh, am na yu bëri yu des mais mun ngeen wax ne am ngeen ak kii si wàllum indemnisation indemnité yu ñeel wàllum logement nam sa soixante mille la woon nguur Sénégal yóbbu yóbbu ko ba cent mille francs est que tamit loolu nekkul benn ak acquis boo xam ne waroon ngeen si jàpp may nguur gi afiya tuuti mu dérouler plan d'action est ce que nekkul tamit euh, boo leen continuer def nii doo leen sacrifier tamit xale yi non euh, jàngalekat mënut a sacrifier euh, élève parce que l'enseignant lu ñuy wax c'est un soldat du savoir c'est des militants de l'école tey ñu bari ñu ngi wax ay jàngalekat lañu woon mais dañu génn njàngale bi dem defi leneen ñun nag du ñu dem Ceuta du ñu dem Melilla du ñu jël gaal du ñu dem fenn njàngale bi la ñuy toog fu ñuy xeex fii lañ koy xeex parce que Sénégal la ñu xam Sénégal mooy suñu réew te Sénégal mooy sunu titre euh, mbirum ndàmpaay nag lu ñuy wax augmentation gis nga bi ñuy defee premier mois ñu def augmentation jàngalekat yi yëpp ñoo ko naqarlu parce que seen salaire au mu yokku dafa wàññeeku lu ko waral mooy. dañ lay yokkal fukki junni ak juróom presque ñu jëlaat ko par la main gauche mooy sur sur imposition parce que <clears throat> mooy lan mm-hmm. mooy impôt ñuy teg nit ñi parce que amul benn jàngalekat boo xam ne mucc na ci impôt xam nga tey am na ñu corps yoo xam ne boo demee assemblée nationale am na député boo xam ne dafa jël bulletin salaire dugal ko ci réseaux sociaux yi ne moom ñetti téeméer si boobu dafa joxe loxo rocc la mais loolu moo am parce que dañu créer ligne boo xam ne boo jëlee xaalis imposé ko am na impôt yoo boo ko tegee mais loolu moo dal jàngalekat yi moo tax ñun waa su CUSEMS suñu wax augmentation dañu ne wax alignement xam nga lan mooy alignement mooy yamale parce que dañu gis depuis 2004 au Sénégal dafa am lu ñuy wax ñàkk yamale mooy dérégulation exponentielle <clears throat> du régime indemnitaire ñu gis ni écart salaire yooyu dafa rëy ah parce que da nga gis Sénégal kuy fayeeku mille juróom benn fukki junni ak koo xam ne dina fay ko juróomi million fukki million ba fekk million ak ñaar mais loolu bu ñu ko waxee nguur gi dafa def jàngat jël benn cabinet MGP Afrique mm-hmm. cabinet bi def jàngat résultat yu mu wane mooy système de rémunération bi amul yamale dafa am inéquité dafa am disparité mi ne agence yi dañu bari mi ne contrats sociaux yi dafa bari mi ne lëndëm moo am ci système de rémunération mi ne kon nag tey jii bu ñu bëggee mu leer dañuy mettre en place un système juste rénové équitable attractif et motivant. léegi nag ma loolu bi ñu ko waxee ñu indi résultat yi def ci ñaari séminaire nguur gi war ko appliquer ba tey appliquer wu ko même président de la république nangu na ni dafa am dysfonctionnement disparité dans le système de rémunération kon lan moo des léegi mooy ñu corriger ko et ñun foofu la ñuy xaar gouvernement du Sénégal mais ñun waa CUSEMS e mësuñu wax augmentation alignement la ñu wax alignement boobu moo indi étude bi étude bi wane na yamale amul lu ci des mooy ñu corriger di ci yokk ne Burkina Faso même question bi dañu organiser daaw conférence des forces noonu lañ ko tuddee sur le système de rémunération des agents de l'État président Kabore ne bëggatuma ñu ma naan ñii ñu ngi laaj lii nañu laaj lii nañu fexe waxtaan xool loo xam ne day équilibrer salari salaire yi mu am équité ak justice sociale parce que ñun lu ñuy wax mooy équité justice sociale parce que loolu moo yor yor réew. d'accord yéen waaye CUSEMS yéen vous êtes euh, pour l'alignement. Mmh. Euh, nga bokk ci euh, plateforme g est-ce que mun naa jàpp ne waaye euh, G7 yëpp autant euh, pour est-ce que mun naa jàpp ne waaye G7 euh, yëpp ñoom dañoo ànd ak waaye CUSEMS si e alignement boobu. mais tey jàngalekat yi. Mhm. ci Sénégal système de rémunération du jàngalekat yi rek sax non seulement waa G7 ñëpp d'accord nañ mais jàngalekatu Sénégal yi système de ñëpp d'accord nañu parce que dama la ne problème mu Sénégal mooy écart saral yooyu loolu ñëpp étude bi wane na ka nee na Sénégal problème majeur mooy loolu mooy da nga gis ñi di fayeeku ay juróom-benn fukki junni euh, ñeent ñeent fukki junni ñële di ko ay juróomi million fukki million écart yooyu nag c'est inexplicable beneen bi mooy l'injustice fiscale mooy impôt yuy dal ci jàngalekat yi si seeni salaire si seeni rappel du dal ci ñeneen loolu moo tax nag ñun ñu ne système de rémunération mooy régler problème bi d'ailleurs président dem na sax bi wax nii moom dafa jaaxle bi ñu jëlee trois cent milliards jënd ko ay oto oto kese jël dix huit milliards ci téléphone moo tax ñun dañu ne bu ñu defee système de rémunération ba wax toog xoolaat ko corriger ko. mu am équité ak justice sociale lu bëri Sénégal dana ko mën a moytu. daaw d' accord man maa ngi juum saa est ce que mënuñoo jàpp aussi que euh, Mariama Sarr nga xam ne euh, moo géré wàllum fonction publique ak kii di euh, Mamadou Talla ak kii di Abdou Karim Fofana ak ministre bu yor wàllum koppar gi ñoom ñooy traîner aussi dossier bi. <clears throat> dama bëgg wax lu leer. Mhm. Sénégal. avant 1962. Mhm. mooy avec euh, <laughs> l'affaire du président Mamadou Dia. Mhm. Sénégal c'était un régime euh, bicéphale. lu ñu wax le bicéphalisme un régime à deux têtes. Mm-hmm. dafa amoon le président du conseil le président de la république d'ailleurs ñu ngi koy wax ñaari kuy mënuñu bokk mbalka mm-hmm. mais depuis lors on est dans un régime présidentiel fort mm-hmm. toutes les décisions se prennent à la présidence ñun depuis on est sur le champ syndical négociation yi ñu def yëpp boo ko dooree ak ministre bi dem primature présidence ngay mujj foofu la ñuy jëlee décision si c'est un engagement président Macky Sall et engagement bi euh, c'est une affaire aujourd'hui de volonté politique. ministre yu ñu ciy yëpp ndeyu mbili gi mooy Macky Sall. mais président Macky. moom mu leen fa teg bu ministre bu la fa tegee defoo loo war a def mais il n'a qu'à en toutes les conséquences kon moom mooy ndelu ndeyu mbili gi moom la ñu fal moom mooy président de la république. moom mooy choisir ses collaborateurs collaborateurs yooyu président de la république c'est le premier responsable de la politique national du Sénégal. kon nag euh, engagement bu sax wax na ci conseil des ministres euh, ci wàllum pour ñu àttee euh, les kon da jàpp ne loolu Macky daf koy def nii rek. pour déclarer non ñun xam nga ñun ñun lu ñu wax. dañu ne bu ñu waxtaanee. Mhm. xaatim déggoo mu am ay seede. Mhm. Olof Njaay ne gor ca wax ja lu des. Mhm. mooy jëf ñun ñu ngi leen di xaar ci jëf fu mu ne nii wax ji bari na mais jëf ji néew na. ñun loolu la ñuy xaar président Macky Sall parce que réew yow muy jiit ki yow mu ñu jiital yow yaay le premier responsable président de la république moom moo nommé premier ministre moo nommé ay ministre moom moo leen jox département yooyu kon moom moo leen war a wax lii lii bëri war naa ko def et président lépp lu xaw ci njàng mi xam na ko parce que 2007 bu ñuy négocier ak président Ablaye Wade moom il était premier ministre mu ngi toogoon xam na njàng bi président Macky doo koo xam ne gan la ci njàngum Sénégal parce que président Macky bu doonee tey président de la République école publique sénégalaise moo tax fii la jàngee bi am lu muy am kon war na delloo njukkal école publique sénégalaise